dimanche 18 février 2024 ca arène nationale ñu ànd ci ak petit production promoteur bi mujjee ñëw fexe ba ñu ràññee mbokki amateurs yi bàyyi leen xel bu baax li petit production la naaru sokaas la jël jàmbaar di ndaanaan ay ndaw yu bari daal koy boole xale bi nga xamante ne nii mooy lasikiri di yaakaaru ngor yoof ak wakam sita bu ngor petit ne bés boobu mbokk yi parrain d'honneur bi kenn ku dul Amadou Ba premier ministre candidat Benno Bokk Yaakaar combat mooy drapeau Mamadou Sidi di coordonnateur mouvement ànd naatal suñu askan ci bés boobu mbokk yi Babacar Balde dina fa jàkkaarloo ak caatu Ndakaar combat boobu la ñu jël yi daal koy jagleel Ngoppa di commerçant bu fa ak Ngoma caatu Kéré jàkkaarloo fa ak Boole numéro 2 Matar Guy gi jàkkaarloo fa ak Pape Mbaye numéro 2 Bébé Dégol dina fa jàkkaarloo ak Blende Junior Tund bu Faas fa ak Elton numéro 2 Zemre bu Ndaw jàkkaarloo fa ak ordinateur numéro 2 Petit entrée supporter 2000 francs loge officielle bi animation mu ne Momo Ngom sponsor leader ba ñu Pro Lab Tampico Huile Jador ak Harmonie kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 18 février ci ak Petit Production bu dëgg rek day neex dafa da ngay yaay ñaan mayuma la laisse-moi fii tranquille la ñuy déglu de. non garaawul yow na na patal sama bët bi. non teel nga yow moom kan man looloo ma jig yow del faral gars sama gars yi leen direct bi ah direct la live and direct xaaral ma may leen gars fi ndimbalu yàlla àndut ak coono de. yàlla xam na loolu. gis ngeen ah téléphone bi. Eh, xaaral sama directeur bi man tamit ngeen ni directeur laa koy directeur mi ngi nii ñëpp kii mooy duudu Lamine a ngi nii mi ngi nii gis nga ko Modou Anta eh, c'est mon bébé adoré yéen a ngi gis pareegu xaar dafa nang damaa xew nag foog ma reew <laughs> ndax yàlla dafa dafa def loolu ah bu la ko yàlla jaglelee da nga koy nangu teer rek ñëpp mën la ñuy déglu àddina am tóoro bul sori nag waaw ah. aja Fane ma demal jërë ngeen jëf mbokki internet bi ñuy suivre di leen nuyuwaat bu baax ah. euh, tey nag ñu ngi fii si Grand waxtaan ak ki nga xamante mooy Zarko gannaaw boobu ñu woowee nag Zarko xamuñu nag exact lan lañu war a wax mais ak lu mënti xew comme mbaam ak Bébé Diène taxaw na par jam production démb da ko régulariser Zarko jël na ñetti avance ñaari avance dañ koy bàyyi nag mu yow mu wax ñu lan mooy woote bi euh, lamin mi ngi fi euh, Modou Anta ñu xool nag euh, question yi ni muy demee maa ngi lay ziar Zarko aca mu lay fay di nuyu ñëpp di nuyu l'ensemble zone 7B di wax encore une fois jërëjëfe maam Thierno jërëjëfe borom daaru jërëjëfe Cheikh du Kara di sàkku ñaan ci barki màggal gi kaay dem xam nga di ci masaw ñëpp di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xamante ni yaa ngi doon bëggee Zarko rek di ko di ko ñaanal pour yàlla defal ko ndam ñu ngi lay sant di la fekk fi nga toog di la jox loxo di nuyu mbëru écrit Grand Yoff mbooloo yëpp di nuyu ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi doon supporter Zarko ak ñi ko doon jàppale ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rawatina borom Daaru Salaam prési ñëpp bàyyiwuñu kenn daal ñoom If Braay ah ñoom euh, Aline Badara Kebe président écrit ñëpp bàyyiwuñu kenn kenn Ibra Gueye DG carrière mu Diop ah, Khalifa Sall Boubacar Camara ah, ñoom ñëpp Cheikh Bakhoum bàyyiwuñu kenn kenn kenn képp ku jàpp ci combat bi rek ah ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax ñi bëgg ma tudd seen tur ak ñi ko bëggul ñëpp ñu ngi ñu ngi ñëpp daal di kontaan ci ñëpp. di jégalu ñëpp nag comprendre nga ci li doon am esaat dañ doon jaay suñu bis rek jaay suñu bopp ñu ngi ñu ngi jégalu ñëpp. di wax képp koo xamante ne da ngay bëggee Zarko rek eh, yàlla bu defee bu ñu waree gisee rek dinañ gisee waa Colobane nañ ma xaar nag maa ngi ñëw incha allah. acca moo doxalal doxalal ba ci kanam. Zarko gannaaw bu nga jógee sa combat ak ki nga xam ne moom mooy Niang bu Ndaw Zarko cinq combats mën nañ ko cee wax ci la démarré cinq combats cinq wax ni nag nit euh, ñi ci des ñëpp xale yëpp ay booy lañ. Euh, quatre yi ñoom ñooy ay booy benn bi peut-être même bu fekkee sax yaa jiitu ci làmb muy jéem kayre mais sa combat ak Niang bu Ndaw si biir combat nga ko jëlee combat boobu noonu bien vrai que dafa prouvé def set combat ñu ne Zarko war ko woon sa combat boobu. lan moo tax nga jël ko xaalis moom moo leen boole wala da nga jàppoon ni ñu ci bari ñu ngi doon wax est-ce que jàppoon ni jéen kayre sax da koy daan loolu tax mu jël ñaam ndaw xam nga nit ki nag moom wax dëgg yàlla àddina moom doomu aadama bu nekk da nga koy bàyyi point de vue mais yow mi nga xamante ni yow yaay concernant bi yow fi nga teg sa bët ak li tax ngay jël ay combat yow foog naa su ma juumu ko waxul nit mënu ko xam man jëluma Diène Kaïré pour mu daan ma jëluma Niang Ndaw pour mu daan ma jëluma amul benn mbër bu may jël pour mu daan ma non man ñëw ma pour daanu je l'ai dit je répété daan ak daanu yàlla moo ko yor man dama ñëw pour gagner ba jour bu ma yàlla may leneen loo xamante ni xam nga safaan la ma nangu ko ak philosophe mais ñëw ma pour nit di mu di bëree pour mu may gagner te jëluma benn avance pour daanu leneen nag di lu nit di xalaat kooku moom la concerné man loolu moom wax dëgg yàlla concerné wu li li nit di xalaat ndax damay jël avance pour parce que xam naa ne dañ may daan non kan mooy dem di bëri ji naan dañ may daan te man yabewu ma noonu waa Grand Yoff yabewu ma noonu zone 7 bay jël avance boo xam ne damay dem pour daanu te ñàkk ma fayda tamit bay jël avance mu la di dem pour daanu kon man lan moo tax ma naan eh, góor gu dëgër laa eh, man ñàkk ma fayda boobu pour dem booy di nii nii ma daan. aw ma aw ma jot boobu sax bu doon loolu kon ma bañ a ñëw. Mm-hmm. bu doon damay dem di jëli avance pour dem daanu ji lu ma fiy def. xaalis bi neex na trop mais tamit ndam li moo ko dàq. dañuy dañuy liggéey bëgg nañ ci li ñuy liggéey bëgg nañ ci gañe mais aussi tamit bëgguñ bëgguñ ko gañe ak gañe boo xamante ni doo am eh, doo am dignité non non dañu bëgg gagné eh, yàlla suturaal ñu ci ba pare ñu gagné ci am ak dignité maanaam am ci koom comme ni ko suñu ay moroom amee. Mm. yee mais du question que dañuy ñëw pour jël ay combat di daanu. Mm. non. te combat ak waaw man moom wax dëgg yàlla xamal lu problème a nekk ni man du ma toog bëgg sama combat taxaw mooy soog a entraîné. bu baax a baax a baax a baax man damay entraîné chaque jour guddi ak bëccëg suba ak ngoon man aw ma heure entraînement man ma nekk grand F ka ma bañ a nekk grand F fu ma nekk damay entraîné. Mm. loolu moo tax aw ma problème mu jël combat di si xalaat an ñàkk doole wala dara non. Mm. combat ma ak Niang bu Ndaw maa nga bëree cent seize kilos cent seize kilos lu yow dafa ëpp si Niang bu Ndaw. Mm. loo ciy dolliwaat leneen. te te ñoom dañoo gis ni man dama wàññeeku <laughs> comprendre nga. Ah. ñoom seen gis-gis dañoo gis ni man dama wàññeeku d'accord dama dindi déchet dama dindi graisse. Mhm. d'accord d'accord mais nekkul loo xamante ne xam nga amuma doole bu ma daanee ñaaw ndaw su ma ko amuloon kay du ko jël. Mm. man am naa doole pour daan ku lu mbër ku lu koy takk mbër. d'accord nii nii nii. acca mu daan ñu ñu dellusiwaat parce que ba tey boobu ba tey amuñu temps wu def jotaay pour waxtaanee combat bi donte am na yeneen sites yu fi ñëwoon sax. waaw mais c'est normal parce que yéen faralu leen ma woon yéen da ngeen programme woon dem géejawaay. yéen ñëpp ba togg jënd seen nag togg seen ay dibi. fas yéene ma daan pour dem lekk seen ndawal. mais yàlla daa bind ni. ndawal woowee. man maa ki koy xéewlu <laughs> te maa ko xéewlu <laughs> yàlla yàlla daa bëri sutura ndimbalam àndul ak coono de ah, billaay wallaay ok euh, nga dellu sil gars yi nan nga bëree combat bi ak Niang Ndaw parce que gars yu bëri dañu gis na combat bi dafa yomb par rapport ak nañ ko doon xaaree non combat bi mënul yomb yombul parce que xam nga mu mënul yomb man stratégie bi ma bëree ma bëree Niang bu Ndaw moom il était pas prêt pour loolu moom parewuloon pour loolu parce que moom dafa wax lépp quoi. nee na ma man tapet laa. kon donc yow bu la nit nee tapet t'as rien à lui dire aw ma dara lu ma ko wax. que que l'uniquement ce que je devais faire prouver euh, prouver ko ni moom ni que ki muy wax tapet la moom dafa juum. moo tax xam nga mu arbitre dagg arbitre sifflé mu leer ma ni léegi xam nga fi mu ne nii prix bi daal jub na. Hmm. waaw prix bi ma doon xaar jub na mm. Mm. kon donc amatul xalaat sa waay day daw rek amul arrêt fu mu dal baax na ma dàq ko mu reculer ma dàqaat ko mu reculer mm. ma ne ko sëñ bi nag tapet bi moo lay dàq ji taxawal comprendre nga bi mu taxawee si la jël ko euh, parce que xamul loolu xaaruloon loolu quoi moom xaaruloon samp jaaga donc mooy ko sax ok euh, euh, léegi bi ngeen jàppante donte daan nga ko lan nga yëg ci moom am na doole moom néewul doole de nga ndaw néewul doole moom wax dëgg yàlla moom man moom su ma koy wax moom dama ko naan sëñ mi ah eh, musculation bu muy def na nga arrêté tuuti rek dem jàngi xeex jàngi bëre kese ñaabu ndaw suba suba mën na nekk roi des arènes suba suba jàng xeex loolu kese moo ko dese jàng xeex jàng bëre da nga jàpp ne bëre non mën na bëre parce que am na am na am na am na am na qualité yu muy daanee lu mu dee dee am na trois ba quat kele comprendre nga parce que loolu noonu ma ko def. bu doon beneen mbër la dama koy sànni. mais moom dooleem ak résistance am moo ko fa ba moo tax moo ko may temps sax pour mu pivoter. comprendre nga mais moom man man boog li ma koy wax. mooy na na na bàyyi musculation bi tuuti di contact di boxe. kooku moom bu ko defee moom wallaahi azim mbër du ko daan. mbër du ko daan Sénégal parce que am na taay euh, am na doole te mën na bëre. Hmm. kon donc li rax li ma lay wax rek mooy que concentré wul ci boxe bi ak contact kese kese kese kese. doole moom macha allah am nga ko. Mm. xam nga taay bi am na lépp mu ngi fa bind bi mi ngi fa. Mm. continuer sa sa sa ligne rek ngay dem boxe eh, dem bëri ji yàlla da lay defal jàmm te boo amatee combat boo xam ni. ki ngay bëreel dëkkul garaaf yàlla na ci yàlla may ndam. Mm. ok Adja Lamine. Mm-hmm. mais euh, Modou Anta. Mm-hmm. combat bi dégg nañ ci euh, Zarko dafa am ay mbër yu mag yu ko jàppale ci combat bi ku ci mel ni Siteu duñu wax sax Modou loo ndax gis nañ ñoom ñëw nañ mm-hmm. mais gis nañ ñoom ñëpp mm-hmm. dégg nañ booy ne uh, mbër yu mag yi xaaj bi yëpp waaw gis nañ Serigne Ndiaye ñëw na Papis ñëw na mais am na yeneen mbër yoo xam te ne ñëwuñu mais dañoo dugal seen loxo ci kom loxo yow lañ ko jox question la rek man gisuma ko de non ñoom yooyu ñoom Serigne Ndiaye sama làmb du gan mais Siteu tamit da see jàppaat comme d'habitude Siteu hmm. non yow Siteu du du du jàpp sax Siteu moom bu sañoon maay daan do ay jàpp ak yooyu noonu moom bu bu moom bu yoroon ndam li ndamu làmb ji du ma ñëw du ma ñëw sama kër la ma koy yónnee mais xam nga moom maanaam boog moom bi bi ñuy bi ñuy bi ñuy jàppalante boobu man ñëwagu ñëwaguma ci làmb ji yee bëri nañ ba pare ba ma génn ci làmb ji dem hmm. moom lii la gisoon nag moo tax mu doon soññ oh. naan ma ñëwal parce que moom lii xamoon na ko xamoon na ni Zarko yow <laughs> hmm. Zarko di ñeex ñeewe mais di ñaabu foo ko gisee. loolu tegtal la wala ndax yow fan nga ko gisee. gis ci bi. moom dama ne la yow eh la yow fan nga ko gisee. yow bu fekkente ne nag may yërndu léegi sa baay ngay yërndu. dañoo doom dina yërndu baay yow. te da ngay te ngay te da nga koy continuer. wala dañoo gis mais dañoo gis ni. voilà yow egg si ñaari dañ la jàpp dañ la. man grave laa dëgg. mais dañ laa wax ñaari téere yooyu ñoom ñoo lay daan non non. <laughs> mais loolu affaire bu baax la rek moom. mais lan ci moom dagg téere mais daa yor baax te xam ko. Ah. waaw. <laughs> loolu maire bi koy defar muuma la. mais yow nekkul sax Ndakaaru man dama ko xam man tamit nag. ci dëkk mais dañ ci dëkk bi laa dëgg ndox bi mu jéggi bañ jox ko loolu xam naa ko bu baax. ah d'accord euh. parce que moo tax nga dem si ñaari tànk non dafa leer te loolu boo koy jël daa am yoon. Ah, da ngay jël droite da ngay jël gauche ba pare soo jël droite. ok dafa leer. Euh, boo amee looy kii léegi ñu ñëw ci Allé Kalé ji waaw. le dimanche 18 ci arène nationale ñu ànd ci ak petit production promoteur bi mujjee ñëw fexe ba ñu ràññee mbokki amateurs yi bàyyi leen xel bu baax li petit production la naaru sokaas la jël jàmbaar di ndaanaan freiné ay ndaw yu bari daal koy boole xale bi nga xamante ne nii mooy lasikiri bi di yaakaaru ngor yoof ak wakaam site bu ngor petit ne bés boobu mbokk yi parrain d'honneur bi du kenn ku dul Ba premier ministre candidat wu Benno Bokk Grand Yoff ak Caatu Jolof Sicap Mbao combat boobu mbokk yi mooy drapeau Mamadou Sidibé di coordonnateur mouvement ànd naatal suñu askan ci bés boobu mbokk yi Babacar Balde dina fa boobu la ñu jël mbokk yi daal di koy jagleel Ngoppa di commerçant bu mag ci marché Sandaga Sey Jàmbaar fa ak Ngoma Caatu Kéré jàkkaarloo fa ak Boole numéro 2 Matar Guy gi fa ak Pape numéro 2 Bébé Dégol dina dina fa jàkkaarloo ak Armée numéro 2 Njóobeen jàkkaarloo fa ak Elton numéro 2 ak ordinateur numéro petit production ne ci bés boobu entrée supporter 2000 francs loge officielle animation mu ne Momo ak Mbaye sponsor leader ba ñu ne Pro Tampico Huile Jador ak Harmonie kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 18 ak petit production bu dëgg rek day neex dafa xam lamb bu yàgg ak lamb